mais ma xam nga dem wax coalition moom groupe. tey ji nekkatuñ ci Yewwi Askan Wi. dans le cadre demuñu demuñu demuñu ensemble pour le moment. pour le moment les les cartes sont comment on appelle sont sont ouvertes quoi. fa laa jëmoon ak yow docteur. mais mais mais mais mais mais yow tamit nag xanaa li ma bëgg a wax mooy tey jii nii le jeu est ouvert wax nga ko. parce que aussi ku nekk am nga say chance parce que Déthié Fall un an ci ginnaaw on pensait que dafay ànd ak kenn dooleel ko parce que jàppoon nañu xëy na parti bi dëgëragul mais dernièrement ak seen coalition bi ni mu tëddoo euh, Ousmane Sonko ay mbiram leerul Khalifa Sall ay mbiram leerul euh, waa wàllu seen candidat ay mbiram leerul donc Déthié Fall dafay daal di sës est-ce que vous n'êtes pas en de profiter de cette situation yow yow mi ma ne léegi le jeu est ouvert. Euh, il faut pas rester au pied de la bu ñu waxee baaba bu dem taxaw ci tànk baaba. man fii fa laay taxaw en fait. daf ma intéressé daf <laughs> ma depuis un mois. dañ ñu koy jaay en fait. waaw mais même wax la ñun d' abord. c' wax lenn pour mu leer ci bopp askan wi ñun du ñu plan B muy benn may ma du ñu ay opportuniste muy ñaar. Mhm. ñett kenn lañ gëm moom lañ yaakaar moom lañ talal suñu loxo muy suñu borom léegi nag dëkk dem ci askan wi pour laaj réew mi. Mhm. parce que jàpp nañ ne am nañ légitimité bi. parce que pour être légitime mooy tu faut être citoyen jure de ses droits. beneen bi mooy am nañ mën-mën bi parce que on gère pas un pays un pays tout en étant seul équipe la ñu yor doon dañuy ubbi tey liggéey tey. Mhm. parce que fa la ñuy xaar. Mhm. muy agriculture muy éducation boo déglu discours am ne ko ci gis bu ñu ci yeggee mën nekk ci def ba ci santé li ci def xam nañ ko. Mhm. làmbatuwuñ li ñuy def nee woon naa la dañoo yor koo xam ne on l'a formaté a à produire on l'a formaté à créer on l'a formaté ñu yor ko yor une équipe dynamique derrière. loolu moo ñu may ñu am ñu yegg fi ñu yee tey tey ji tey ji bu ñu mënee def def le tour de l'Europe def aux États-Unis wër wër le Sénégal def nañ ko defaat ko dans une dans dans une dans un dans une action qu'on appelle le kay bokk suñ ko mënee c'est parce que am na luñ luñ mënee. am na mm. luñ luñ luñ yor mais ki ñu yor la ñu wax kenn ku nekk nag am na sañ-sañ jaay kandidaat. Mm-hmm. jaay kandidaam mais ñu dañ koy jaay tout teg ko ci ay valeurs ces valeurs là de woon naa la sànq la rubrique est vertueuse. toutes ces vertus là ñu ko gis ci ci ah, la bu faloo ëllëg am na ci lu mu wax ci lay taxaw cohésion nationale paix ak stabilité diplomatie efficace redressement économique social équité distribution des richesses mais yooyu yëpp Macky Sall am na ci ay jéego yu am solo surtout équité boobu redistribution des richesses bi tey boo duggee ci dëkk bi di nga rendre ne euh, voilà. Ndakaaru équité redistribution des richesses. maanaam boo duggee ci dëkk bi tey jii Sall bokkul. il appartient au passé. mais li nga ñu wax nii daf Macky def na ko bu pare. loolu laa bëgg wax en fait waaw boo bëggee. xam li sàmm di. maa ngi jégalu da ngay toj gis nga li ngay wax ne yëpp loolu da ciy président da ciy le président da ciy euh, proposé. Mhm. dafa am baat élément bu essentiel bu nga xam ne c'est un défi générationnel pour ñun ak ñi ñu àndal ak toute l'opposition de façon générale c'est d'instaurer un état de droit. Mhm. gis nga bu ñu ko deful lu ñu fi mën a def amul njëriñ. état de droit mooy moo joxe benn principe d'abord l'état en tant que tel ak toute sa puissance su édicter des lois mhm. su édicter des directives moom daf ko war a dafa war conforme ak la chaine denor mooy tax suñ di condamné nit mu mhm. am sañ-sañ dem def recours suñ condamné état mhm. mu war a nangu parce que dafa tooñ soo bëggee état réew li nga bëgg a doxal yooyu yëpp da ngay dafa instauré état de droit donc ñun d'abord dans le PRP avec le président Déthié Fall Fall c'est d'abord installer un état de droit qui est un défi générationnel il faut que ñu def ko maintenant ndax Macky Sall liggéey na ak liggéey